lii ñu fi daaw a dese mooy mbirum paj ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa bokk ci métier yi nga xamante ni moom da ko apprécier muy faj boo leen ñëwee tey defal ñi lii damay bañ répétition li dafa wax mais damay résumé rek di xam ne sant nañ yàlla ndax lii gox bu nekk moo ko soxla woon koñ bu nekk ko soxla woon yàlla ñëw dogale ko fii ci ñun kon dañ ciy sant yàlla bu baax di leen ñaanal ñi initier lii lépp di manière général yal leen yàlla taxaw suturaal leen lii amul lu ko gën amul lu ko gën ndax man euh, Ismaïla mais doon na ma suivre sama docteur la euh, am na lu ñuy lié maak moom doon na ma suivre moo tax bi ma ko gisee sama xel dafa dal ah, fa tabaarakallaahu di sant yàlla bu baax ndax am nañ yaakaar ci mbir mi satisfaction dañ ko am ndax lii lii Tafa wax léegi rek man nga ñuy consulter la rek mais boole ci ay verre te man valeur yi xam naa ci dara ndax verre yi ma takk nii <laughs> ñi ma ko commandé France trois cent quelques mille kon xam naa ci dara kon bu ñu ñëwee di ko def gratuite kooku ndimbal mënul paase nit loolu. kon loolu ñu ngi leen sant di leen ñaanal. yàgg nañ ko soxla mais nag boo nee ba andi leen ñuy dañ leen ci sant yàlla ndax consultation man yàgg naa am problème mu bët. consultation euh, euh, clinique yi ay dix mille vingt mille bu dee ci euh, régional ay trois mille ak dix mille yooyu yëpp jaar naa ci kon boo la ñëwee def gratuit ñun dañ ciy sant yàlla. li ñuy jëkk a def sax mooy sant yàlla bi nga xamante ne yàlla defal nañu xéewal goo xamante nii dañ koy waxee xéewal gu mag a mag la ndax ay nit di daw ay at wala ay weer ngir dem ci yu mel noonu mu jafe leen Gueye original ñëw fii. Euh, Sébi Xotaan particulièrement ñëw fii ngir defal ñu teraanga ji toll noonu waaye defal ko population Sébi Xotaan ak population Sénégal loolu du ñu dem am lu dul rafetlu ko waaye du ñu am lu dul sant ko ñaanal ko ndax bés bu léegi bésu mbégte la kenn wératul muy mag ñi di ndaw ñi kenn wératul waaye euh, dafay mel ni lu mel ni euh, moom la ñuy xaar jamono bi ci ñi nga xamante ni ñooy yëngatu ci lu mel nii ak politique yu mel nii maanaam ñu gestu seen askan euh, xam ne askan wi sonn nañ loolu nag lii day firndeel ni moom mi ngi ci ginnaaw askan wi ndax bu ko neexoon tey jii li valeur la ay millions yu bëree bëri la wala kenn xamul nu mu ci ab ci alal nga jël ko sacrifier sa temps am na sax man naa wax ni ñoo xamante ni moo leen fi jëkk sacrifier temps am sacrifier léppam am ngëm-ngëmu ne de Sébikotane bokk nañ ci askan wi te ñu ngi fii Dakar bariwul lu ma fekk lu mel nii am na nag. waaye lu mel nii moom bëriwul lu ma koy fekkee eh, initiative bi am na jamono yee may nañu fi genre consultation bu mel nii mais lii de vraiment ñun bëgg nañu baax ci Gueye Original di ko ñaanal di ñaanal tamit ñi mu àndal yëpp ci liggéey bi ndax euh, vraiment li euh, ko waxoon sànq santé kenn amul fayam ah, ñaar rek ñoom ñoom mooy mooy téye am réew muy njàng akum paj am njàng bu réussir jàpp naa ne àddina bi lépp day réussir am njàng nag bu réussirul jàpp naa ni it dara dootul réussir damay faral daan wax nag benn mbir ci eh, pol ci mbirum politicien yi gars yi dama ci faral de dama naa damay faral di wax ni eh, tailleur dañoo yàgg jël mesure politicien yi dañ ma baal nag mais ñoom ñëpp laa koy boole dañoo yàgg jël ay mesure mais mesure yi yii day gàtt yii day cëkk ñu jël mesure daal ba léegi kenn na ñëlagul eh, sénégalais yi seen mbubb bu ñu war a sol ñu solal leen ko ñu ngi jël ay mesures rek nag léegi nag Guèye nag moom am nañ ah lii mu départ ne yaakaar nañ mesures yi ñu jëm man naa am xëy na bu doon bu doon sol bu fekkonte ne da doon dañ ko solal jàpp nañ ñi mën nañu bokk ci ñi muy sol dinañ ko jot loolu loolu lu ñu lu ñu jàpp la ci eh, ci liggéeyam bi nga xamante moom la koy liggéey waaw bi ñu ko waxee daa da boo xoolee dans deux ou trois la mais après li ñu def mooy jëkk euh, consulter le maire euh, monsieur Aline Pouy Euh, woo nañ ko wax ko ko xamal ko ne yëf yi dafa bett te ci deux jours la mu xamal ko tamit ay adjoint loolu it biñ ci jógee fexe nañ ba képp koo xamante ne délégué de quartier nga parce que collègue dañu am benn collectif des délégués de quartier ici à Sébikotane fexe nañ ba communication bu ñu dugal ko ci groupe bi pour quartier yëpp ci Sébikotane yëg ni tey lu mel nii am na. yemuñu ci loolu it fexe nañ ba tamit imaam yi nga xamante ne ñu Sébikotane dañu am tamit groupe. ñu fexe ba dugal ko ci groupe boobu pour aima yëpp yi nekk Sébikotane masjid yi ñuy nekk yëpp ñu man koo yaatal pour que ñu xam ni tey jii kat euh, Gueye original war na nañoo ñëw Sébikotane waaye ngir ñëw defal consultation ñi nga xamante ne dañu am jàngoroy bët waaye yemuñu ci loolu buñ ci paree ñu may leen ay verre yoo xamante ne verre yi li ci gën a yi am na ciy jar trois cent quatre cent mille loolu kenn kenn xamul ak payam yàlla rek yàlla rek lañ koy bàyyal vraiment mobilisation bi tamit nit ñi rafetlu nañ ko ñëpp ñëw nañ. boo xoolee gis nga baas bi gis nga nit ñaa ngi ñëw te dañuy door a commencé taw bi moo téye ñu bari te dafa dafa tombe ak beneen mbir boo xam ne dafa am ci quartier bi ñu koy defee mbooloo nekk fa jàpp naa ni verre euh, yi ñu indi yaakaar naa ni boo ma dana jeex tàkk te doy loolu moom jàpp nañ ah wax dëgg yàlla kontaan nañu daal vraiment man dama ñëwoon julli si fajar gi si jàkka ji maa sama yaay mais dama génn rek daal di dem sama yaay ne bi mu ñëwee kër ga moo ne ma yaay une liste pour consultation ma léegi comme da ngay préparer dem école bàyyi ma daw ma inscrire la ci la ma inscrire ñëw ne ma naa la maa nekkoon numéro 11 ma xëy dem école bi ma demee école ba consultation yi commencé maire bi woo ma téléphone dama ma consultation yi commencé na bi ma ñëwee aussi vraiment ah jàppale nañu daal ndax xam na ne suñu école mi ngi tout près ñu ngi bàyyi suñu élèves yi foofu bàyyi ñu leen ak kenn. bien que suñu numéro yi soriwul defal nañ na faveur may ñu ñoo euh, troisième age ñu teel a consulté wu man damay am souvent des allergies en plus myopie bi damay am ay allergies amoon naa ordonnance il de a de cela 21 jours dama jënd verre yi maa ngi ko jënde woon 90 000 Sandaga opticien ba fa nekk 48 heures après j'ai perdu les lunettes maa ngi doon xalaat fin du mois bi war na waat 90 000 pour acheter les lunettes mais heureusement consultation bi au m'a offert les lunettes gratuitement vraiment sant yàlla bindal ma ordonnance aussi pour les allergies waa su ma jógee léegi dem pharmacie Balde jënd ko vraiment kontaan nañu daal lii daal opportunité la vraiment. ah, ah Gueye l'original ñu ngi koy ñaanal yàlla parce que lii moom vraiment dimbal la pour tout le monde ñi nga xam te ni am nañ moyen faju ak ñi nga xam ne amuñu moyen bi ñun ñëpp la bokk dimbali vraiment lu mu mën ren bu déwénee yàlla mën lu ko ëpp. yàlla na ko yàlla yokk lii moom lu baax a baax a baax la yàlla na ko yàlla yokk ba mu yëkk kontaan nañu vraiment ñun jàngalekat yi nga xam te ni vraiment du ñu am ay bët ah kontaan nañu vraiment kontaan nañu sincèrement kontaan nañu yàlla na ko yàlla yokk Gueye l'original. waaw tane naa ndax lii nga yëkkati gis naa ko sa mu jeetam gis naa ko bët bi moo leerul waaye kii sol lu weex gis naa ko waaw. kon yal na yàlla yor leen yal na yonent bi yor leen fa ngeen bëgg a yegg yal na ngeen fa yegg ci barke Sëriñ Fallu jaa ngeen jëf jaa jëf euh, def nañ consultation ba pare vraiment on est euh, ndax lii euh, Diop Diop andi tey andi leen ba fii vraiment lu nu war a mën a saluer la ndax Euh, xam nañu ne yéen euh, lu ngeen euh, yéen seen yéene ci mag ak ndaw jigéen ak góor xale dag mag def ngeen seen warugar daal te xam naa ne sant ak ngërëm la ñu ci yéen ndax maa ngi mu toog ba ci yàgg nga dem mënatu a gis nga dem ba indil koy verre nga jox ko ko vraiment mu xool c'est-à-dire ni mu waroon a gisee gis na lu ëpp loolu dëgg-dëgg ñun duñu man lu ñu sant leen gërëm leen. Gueye original def na loo xam ne lii tey Sébikotane yëpp ñu koy gërëm di ko sant bu ngeen demee ne leen Gueye original alors waa Sébikotane 18 quartiers yëpp ñu ngi koy sant di ko gërëm ndax def na loo xam ne lii peut-être amoon na fi mais bu mel nii daal wax dëgg yàlla. Euh, exemplaire la. Euh, ma sonnoon maa opéré te opération bi euh, xëy ne demul woon na mu demee wante bi ma takkee weer yee tam nii ma lay gisee yow mi may interviewé wax xam naa ne na ma la gisee nii bokk wala démb na ma na ma gisee woon kon kan sant ak gërëm am na ci. vraiment c'est une satisfaction donc di remercier de passage les initiateurs donc ki ma ci gën a xam mooy Issa. moom mi nga xam ne moo fi indi gars yi ñuy def ay euh, consultation gratuite en plus de cela di offrir ñi nga xam ne dañu soxla ay lunettes leen ko may donc dafa nekk loo xam ne wax dëgg yàlla toute la population de Sébikotane plus particulièrement Darou Salaam ñu ngi leen di remercier ci initiative bi di wax ne li ngeen mën ren yàlla ngeen ko mën déwén quoi ci barke alxuraan. jot naa ci bénéficier wu en plus euh, sama jabar it bénéficier wu na ci donc enseignants yu bari bénéficier wu na ci te pratiquement maa ngi koy wax sànq rek ci biir maa ngi naan la prochaine jéem a dem ci école yi. afin que ñu mën a dimbali xale yi nga xam ne dañu am problème de vision quoi de près ou bien de loin waaw vraiment ñu ngi remercier Guèye l'original donc di wax aussi la mairie de Sébikotane donc lu mel ni dañ ko war a gën a mën a pérenniser donc de ce wut yenn partenariat yoo xam ne comme ay Guèye ñu di leen gën a jàppale gën a taxaw bu ko defee toute la population bu Sébikotane yëpp mën ci gis seen bopp. kontaan si bu baax di remercier monsieur le Guèye monsieur Guèye génération originale si acte noble mu def. ñëw jàppale population Sébikotane may leen une journée de consultation gratuite surtout lu jëm si wàllu ophtalmo parce que tey population yi dañuy jànkoonteeg ay problèmes yu bëri lu jëm si wàllu bët donc tey bu ñu ñëwee fii si commune bi euh, may leen journée de consultation may leen ay verres donc du ñu euh, def lu dul kontaan si di ko sant di ko gërëm parce que ñun ñi commune bi ñun la waroon euh, santé si suñu compétence la bokk. donc bu ñëwee tey mu def ko dañ koy gërëm di ko sant te eh, di ko saluer. waaw tout à fait pratiquement journée consultation yi fi am yëpp ñu koy def ay partenaires muy commune bi wala ñeneen euh, comme moom monsieur Guèye nu mu ko defee population yi dañuy génn parce que mën naa ne c'est au niveau national le problème ay problème santé donc dafa bëri si si dëkk bi nit ñi ñu ngi seen kër yi mais ñu bëri dañoo feebar te souvent faju dafa. day xaw a jafe si ñoom déplacé wu wala structure sanitaire yi dañoo sori surtout lu jëm si wàllu ophtalmo nga xam ne pratiquement zone bi yëpp bu fi amee bëriwul donc tey nga ñëw ba indi ko fii mu jege leen euh, c'est normal ñëpp génn en masse pour ñëw wuy si. tout à fait euh, loolu dañuy collaborer ak ñoom di ko ubbil suñuy bunt di ko jox loxo ne en tout cas ñun commune bi pare nañ parce que lépp loo xam ne njëriñu askan wi ñun pare nañ pour accueillir ko. donc di ko remercier di remercier Baye Seye aussi nga xam ne moom moo ko nekkal fii ba ma ko waxee dama ne ko lu mu xat-xat dinaa ñëw fekke ko gërëm leen sant leen au nom de du maire monsieur le maire Aliou Pouy dafa voyagé mais xam naa bu ko fi fekkoon aussi dina fi teg tànk ñëw euh, remercier monsieur Guèye. Euh, Guèye l'original vraiment mënuñu ko fay dañ koy ñaanal yàlla parce que lii mu def tey nekk na loo xam ne lii vraiment defalu ko Sébikotane rek def ko Sénégal yëpp la ko defal doomu Sénégal yëpp la ko defal waxuma la Sébikotane rek yemu fi. dafa nekk loo xam ne lii njëriñ la boo xam ne bii ñun suñu wàllu bopp gis na nañu njëriñ bi mu ñu defal parce que ñëw def consultation gratuite sa dërëm demu si ñu yëkkati ay verre di leen jox mu wóor na verre yi boo demoon di ko jënd verre yu cher lay doon mu ñëw def ko ak volonté vraiment mu ñu la mooy sante ko ci di ko ñaaral yàlla fi mu bëgg a jëm yàlla na ko fa yàlla yóbbu donc vraiment kontaan nañ trop si geste bi kontaan nañ si lool lool lool wax dëgg yàlla waaw te lii itam euh, magi Pastef yi ma fi taxawal. wóor na boor yàlla ñoom ñëpp seen xol sedd na fi mu nekk nii. Euh, ni ma ko jàggate mooy dafa def euh, li nga xam ne euh, dafa dafa dëggu si li mu nekkee donc mënuñu jàpp ne affaire politique la ko jëlee ñun jëluñu ko affaire politique moom daf ko jël def ko si cadre war a jàppale doomi Sébikotane war a jàppale doomi Sénégal moo tax mu def lii kon munuñu la may de ko encouragé vraiment ñu ngi koy ñaanal yàlla bu baax a baax ñu ngi koy encouragé si lii mu nekkee yàlla ko si jëmee kanam. ñun nag comme ni moo ko expliqué rek euh, du caagi nag affaire politique jëluñu ko affaire Pastef ni rien mais xam na ne carrément dafa ñëw pour jàppale si doomu Sénégal doomu Sébikotane donc euh, ñun magi Pastef yi nga xam ne ñoo fi représenté tey Pastef mënuñu la may ànd ak moom di ko joxoon ne ko moom la moom la moom Guèye moom la kon mënuñu vraiment di ko encouragé si tànk yi mu taxawee. day ñëw sax day ñëw moom Guèye ñëw ñëw na ñëw na. <laughs> voilà lépp pour defar réew mi la euh, lépp pour soppi réew mi la parce que vraiment réew mi toll na foo xam ne fi métti wu na trop te gis nañu ne fi ñu jëmee réew mi tey nekk na loo xam ne avantage yu ñëpp la kon ñëpp nañ si jàpp jàppale sunu président jàppale sunu premier ministre ba réew mi mën a changé ba doomu Sénégal yëpp gis nañ bopp si biir. dañ koy rafetlu d'abord dañ koy njëkk a rafetlu ndaxte lii lu jafe la. ndaxte ñu bari fii wax dëgg yàlla plus de deux cent personnes bëggoon nañu am lii mais nag mënuñu ko am parce que peut-être les moyens ne suivent pas mais nag yàlla def Guèye l'original ah équipe ñëw fii ci sebi Sébikotane ñu jaare le ko ci yàlla bàyyi sëy mi ah magam Ibou Diop nekk magu Pastef doon ci kontaan di koy ñaanal yàlla yàlla na yàlla suñu borom jëme leen ci kanam wax dëgg yàlla loolu doon ci kontaan di ko ñaan wax naa ko sànq ci jumaa ji jàll na yàlla suñu borom fe fay leen doon ci kontaan bu baax a baax ma dolli ci nag ne sànq maa ngi dégg ibu Diop mu ngi naan euh, yaa ngi laaj ibu Diop mu naan day ñëw day ñëw ñoo ngi xamal nag président Sonko président Diomaye Guèye dina ñëw waaye nag buy ñëw de àndax doole du ñëw de du ñëw kese de buy ñëw boo déggee luy riir rek xamal ne géey l'original mooy ñëw parce que ñun ñëpp ñooy ànd moom fas kee ne liggéey jàpp ci liggéey bi moom it di ko sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla yàqu dëgg parce que ñun ñu ngi koy suivre télé ñu ngi koy suivre bu baax a baax a baax vraiment loolu daal laa amoon lu ma ci doon sànni di leen sant di leen gërëm ak yéen waa télévision bi aussi. mais impression bi mooy déjà sant yàlla. gërëm vraiment waa Sébikotane gërëm suma coordinateur yi fi nekk ak responsable yi parce que def nañ liggéey bu am solo en temps très record te je crois que ñu ngi ko préparé ci trois jours ou deux jours gërëm aussi suma papa yi magi Pastef parce que ñëpp xam nañ ne aussi man ba fa ma dëkk parcelle magi Pastef yi ñoo ma ëmb ñoo ma dooleel et tey kontaan nañ ci taxawaayu kër Sébikotane yëpp. Euh, li ñuy wax rek mooy ñun suñu xeetu politique du bokk ak ñeneen ñi parce que ça fait treize ans ñu nekk ci lu mel nii moom fait que du social parce que li ma wax la rek ñun ndigalu waajur la ma suñu politique mais suñu koñ moo jaxasoo woon suma waajur bu jigéen ñaan ma ko na ma jógal nga dugg ci politique dimbali ñi nga dëkkal ndaxte man nga ko maintenant loolu nag mooy law bay wër Sénégal tey consultation ophtalmo ñu ngi ci quatrième édition en tout cas que bi mooy quatrième tournée boo xam ne ñu ngi koy def ci at mi di jàppale un peu partout Sénégal loolu dafa am importance donc euh, à chaque fois que carton yi jógee France ñëw suñu ophtalmo yi macha allah foo mënti dem ñu ngi taxaw ci Sénégal donc dinañ jàppale nit ñi ba pare may leen ay verres yu cher parce que xam nañ ne tey sénégalais boo gis 70 pour cent des sénégalais dañu am problème bët te ñu ci bare pour ñu am verres aussi dafa difficile donc sant yàlla bu baax. non xam nga xayma bi day metti day metti trop mais dañ ko mën a def à la fin. parce que tey affluence bi la gis nga tey fii rek on a démarré on est à plus de deux cent trente personnes yoo xam ne nañ leen consulter gratuitement ba pare ñëpp ni ko yeyoo nañ leen jox verre mënoo ko xayma tant que pare woo mais li wér ba wóor moom rien que la prise en charge des des des docteurs des ophtalmos déjà les déplacement jusqu'en Mauritanie où on va faire quatre jours avec euh, sénégalais ya fa ne euh, le carburant ça coûte cher énormément cher euh, l'équipe la prise mais lépp sant yàlla rek parce que wax nañ ko li ñu neex neex rek mooy sénégalais yi kontaan gis seen bopp jaamu yàlla daal ci jaamu yàlla mais buñ ko mënee quantifier moom xam naa ne bare na daal bare na tool da alal ju bari la mais nag duñ ko sentir te l'instant que nit ñaa ngi kontaan nit ñaa ngi gis seen bopp li may lancé rek mooy li ma wax waxoon man boo gisee man suma bakken laa teg si nekk si sama constance ak sama cohérence yàlla day taf na tey que Sénégal xeex nañ ba soppeeku na ak li ma wax rek mooy que il faut qu'une génération se sacrifie pour que Sénégal jëm ca kanam ngir suñu doom yi ak suñu sët yi te génération boobu mooy ñun ñun ñoo war a soppi doxalin comme ni ko ñi jiite réew mi di sumay xarit ñu yàgg xeex li ne jub jubal jubanti lu wér la ci ñoom parce que gëm naa ne Sénégal bu ñu jubee jubanti jubal ñëpp dinañ ci gis seen bopp te loolu lañ commencé na leen ñëpp jàppale. Sénégal moo tollookul ci politique politicienne fi mu toll tey mooy nan la ñuy sauver suñuy njaboot nan lañuy soobee sauver suñuy doom moo tax appel bi ñuy lancé tey mooy que tey bu leen nax parce que coalition yi ngeen gisee ñu tudd yëpp seen bopp leen tax a jóg li ñu bëgg mooy nax sénégalais pour seen propre intérêt jox nañ leen exécutif dañ leen di joxaat assemblée avec une majorité éclatante pour que loi yi nga xam ne bëgg nañ ko teg ci réew mi pour noddante réew mi pour liggéey réew mi kenn du ko kale parce que opposant yii nii. bu fekkoon ne mat nañ li ñu doon kenn du tas assemblée bu fekkoon ne matoon nañ li ñu doon metti sax ñu am majorité mais ñii dañu maturul te dañuy xeex benn nit la ñuy xeex moo leen sonal ñun tolluñu foofu ñun Sénégal la ñuy xeexal donc nag la ma waxoon rek nen nan yi bari parce que les présidentielles yi association des tàngana ak ñi di jaay nen nee nañ toog nañ une semaine jaayu nen dañ ma yóbbante nen yi bari pour que bii yoon ñu toog un mois kenn du jënd nen. parce que ñoom ba léegi comprendre lan la leen sénégalais yi wax. tant def naa émission bu rëy euh, bët ki démb si seen tele càmbar nañ ko bu baax a baax toj nañ ko et ñëpp gis nañ ne aussi même bi ñu demee euh, fële di jam ñaajo huit heures trente bi ñu interviewé xamuñu woon dañu amoon njort ne loolu la projet bi di wax mais dañ ko toj wax nañ ko loolu daw na fu ne avant même ñuy dugg ci kii bi ñu koy présenté parce que yëg-yëg la gëm-gëm la loo xam ne dañ koy dund du lu bees. wax naa ko te képp ku toog naan dañ ma plagier képp ku toog naan affaire dafa niroo parce que sax xam-xam moo màccul parce que base bi ñuy liggéeyee un plan c'est toujours pour le Sénégal donc plan yi dafa am foo xam ne dañ fay niroole parce que ñooy roote fi ñuy roote pour teg plan bi moo tax les huit pôles ñenn dafa niroo et normal parce que il faut mu niroo parce que bu ñu xelee normalement xelle bi ñu jëlee ko ci base bi nga xam ne mooy Sénégal il faut mu am niroo parce que ci mennam réew mi la richesse yi fa ñu nekk xam nañ ko. donc nag mu ngoogu li am solo ba am solo mooy que tey sénégalais yi dogu nañu jàppale ñi fi ne nekk seen ginnaaw pour que Sénégal soppeeku parce que on est dans un pays immensément riche fu alalu Sénégal ci meññeef teg naa fa suma tànk mais malheureusement très pauvre parce que masuñu am ay dirigeants patriotiques ki aiment leur pays qui mettent le pays les intérêts du pays en avant loolu la ñu yàlla nàkkal tey nan ko jàpp bañ ko caaxaane te éviter coalition supp kànja yi xam ne tey kenn mësul xalaat ne tey coalition Suppa Kanja dina judd ci réew mi moo tax ma ne leen Suppa kànja bi dafa tourné dafa forox kottu yeex si pax yi forox na te ñoom ku ko ci lekk moom yaakaar naa politiquement da ngay dee parce que euh, crustacé bu yàqu moom day faat boromam. je serai à Mbour parce que moo jógee fii demain maa ngi Mbour après demain le samedi je serai à Grand Mbour après Joal et je continue mais Mbour incha allah bu ñu toogee ba 16h incha allah sorewul dinañ def délégation dem gars yi liggéey bi. parce que noonu lay demee nag fi ñu toll nii moom yaakaar naa ne wane nañu yoon ba ñu bari sax topp nañ ci parce que dañ teg coalition bu doy waar 34 département délégation yu ñëw kat yi ba nu ñu egg si ndig ak taw bu métti ak tali yu bon yi mais wax nañ ci téléphone yi ak micro yi organisation yu mag ànd ak ñu ñu teg suñu coalition Sénégal d'abord mais ba ñu waxtaanee comme autorité yi tàllal nañ ñu loxo ñu ne ñun dañuy jàppale liste Pastef li tax ñu def ko mooy. ku comprendrewul amoo jeunesse politique doo ci génn parce que président Ousmane Sonko wane na ko bu doon def comme ñi yor parti yi classique yi nga xam ne seen bopp rek bu ma jiituwul wala bu ma ñëwul dara du baax kon Diomaye du nekk président et aujourd'hui il faut que cette générosité parce que wax nañ ko man na ku mel ni man ça fait 13 ans je un député populaire parce que 13 ans maa ngi jaamu yàlla ci askan wi di di di di di si wax lu àq bu baax a baax donc maa ngi leen di gërëm di leen di gërëm nag responsable Sébikotane waaw man d'habitude daaw ma ndékki mais tey rek ndékki bi damay bañ sekkee ni nag summi ma jawee ni mais ndékki bi ñu ndékki tey moom doy na waar sànq ba léegi ñu ñu bëgg ñu añ ma ne leen bu ñu añee dañuy las ko tànn xam naa ne daal dinaa fi am kër de waaw wala ma am fi nekk parce que sentir naa sama bopp fi non àddina du dara lu dul solidarité fu ne la ñuy dem mais chaque fois ñu gis ay population dañoo booloo déggoo di wat gaal di yëgoo saanu daf ñuy kontaan moo tax ma ne leen am na yeneen programme yu ñëw yoo xam dañu ko fi indiwaat dina indi programme pour jigéen ñi seen formation seen i financement parce que 13 ans ñu ngi koy def tey li ñu gëm mooy cette symbiose gërëm waa Pastef fii parce que responsable ñëw nañ ñu bari ñëw nañ aussi gëme gërëm laa mairie léegi lañ fi jóge avec euh, adjoint au maire ak présidente commission nee ma beneen waa mairie adjoint au maire Ablaye Ndiaye ñëw na et lii la parce que lii ñun moo ñuy réconforté su ñu ñëwee gis suñuy autorité suñu ginnaaw daf ñuy gën a may doole donc maa ngi gërëm monsieur le maire dafa voyagé mais groupe vraiment l' administration municipale ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm aussi les responsable ñoom ñëpp ñoom Baye Sey en deux jours trois jours ils ont réussi à passer l' information et à je dirais pas mobiliser mais avoir quand même benn affluence bu doy waa waaw vraiment Issa aussi ñu ngi lay gërëm di la sant di gërëm ñëpp di gërëm jeunes yi ma àndal médecins yi docteurs yi et c' est ça le Sénégal si suba ñëw ñëw de ubbi lépp ah imaam yi defal ñu ñaan tey ñu ngi koy defee ci jumaa ji c'est symbolique ci jumaa ah li mu taw ci jumaa la ñu commencé suñu activité mu taw sant yàlla donc yaakaar na ne yoon wi dina sedd guy dina nooy et sénégalais yi nañ ci gis seen bopp di gërëm sama papi Pastef yi encore une fois